animateur et eh, clin d'œil à notre directeur général du Grand Théâtre liggéey bi rafet na lool monsieur Guèye DJ mën nga ñëw si c'est possible la musique en attendant l'installation nous avons monsieur Lam qui est là ñu ngi leen di gërëm di leen sant seen taxawaay bi bu baax rafet na trop voilà depuis 16 heures ba léegi ak yéen fii ci kaw seen bi et ku nekk nag euh, defe naa ni sa waxtu bu jotee da ngay xam ni waxtu bi jot na donc am na koo xam ni mooy jërële bi mooy euh, MC la. MC. MC. Oumy Ndour nous allons accueillir cette fois-ci la grande dame elle a une voix très belle Oumy Ndour la charmante elle va venir. voilà pour continuer le programme de ce de cette soirée. Oumy si scène si tu es prête tu peux nous rejoindre. Oumy Ndour mooy ñëw continuer programme bi defe naa ni en tout cas ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm. Uh-huh. seen taxawaay rafet na en tout cas patriote yi di leen wax ni que ñoo ko sumbandoo woon ñoo ko waxandoo woon te alhamdulilah yàlla def nañu teew nañ fii ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def jàmm si réew mi ci barket baatu bi la la la. gars yi tàccu leen Oumy Ndour Oumy Ndour elle arrive tàccu leen Oumy Ndour. ci animation salle bi xaar ba xaw na yàgg tuuti mais ñu ngi di jaajëfal dafa lay ñu xaar yenn kilifa yi nga xam ne yitte yi dañ leen téye woon pour ñu mën yegg si parce que mënuñu woon wute bés bi donc ñu ngi di ñaan ngeen jël place toog mu daal tàmbalee liggéey bi. DJ, encore 30 secondes, le temps Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos rangs, qualité, titres et grades, bienvenue au Grand Théâtre National de Ndiaye Kumbarose pour la première nationale du documentaire Le Projet. Mon nom est Oumindour, je suis journaliste attachée de presse et je suis honorée de vous présenter cette cérémonie ce soir. fait, il y a il n'y pas d'assez grandes pour contenir euh, tout ce beau monde ce soir. Alors, on s'est rabattu sur le Théâtre National et merci d'applaudir les avec beaucoup de générosité de chaleur. C'est le directeur du Grand Théâtre National. Merci d'accueillir M. Serine Palbey. xamante euh, ñu ngi kontaan ci accueillir tey le film le projet dama leen wax tuuti rek li tax lii am xam nga dañu toll jamono boo xamante ni lépp ay film la boo bëggee gis dara da ngay YouTube nga xool boo bëggee xam dara da ngay dem Google nga xool si on ne raconte pas notre histoire des jours ñeneen raconter notre histoire donc je dis bravo à ces jeunes qui ont réalisé le film je veux maximum de bruit aux jeunes qui ont fait ça merci beaucoup ñu leen di wax le film ci trois parties lañ bi mooy parti bu njëkk bi ñu ngi ñaan les autres partis aussi ñu ñëw fii ñu defaree ko fii xam nga li may faral di wax dafa am ñu am superman am ñu am spiderman ñun lañ ñu suñu Ousmane jërëjëf cette première nationale du film Le Projet, un film réalisé par Mamadou Ndiaye, produit par Mohamedou Bamba Diarra, Silérante et ce projet raconte l'histoire d'une quête, d'une conquête euh, inédite qui n'a jamais été vue dans l'histoire politique euh, du Sénégal. Et l'histoire parle de la naissance du PASTEF il y a dix ans,

production musicale. Parmi ces artistes, il y en a une qui nous vient du pays sérère. Elle vient plus précisément de Fissel et elle a composé interprété un des hymnes de la campagne de Pastef. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Maya Kama pour son titre, son collectif de Maya. Maya fatigué Garfou Ngoye. Hmm? comment as-tu composé ce titre qu'est-ce qui t'a comment. qu'est-ce qui t'a poussé à composer ce titre. waaw euh, li ma poussé ma def son bi mooy en tant que mu nekk jeune dama war a ñëw ànd ak ki nga xamante ne day xeet la jeunesse bi loolu moo tax ma def salaamaaleykum euh, les patriotes de Grand Théâtre maa ngi nuyu gis na surtout ak sa sant di indi benn précision rek man la Ibrahima Thiam je suis l'ancien coordonnateur de la jeunesse patriotique du Sénégal de 2000 de 2018 jusqu'en Donc je profite de cette occasion pour féliciter mon remplaçant et successeur, Maître Gaël Touré, tey bu ko waxee nag le président Ousmane Sonko a fait un sacrifice pour l'intérêt du projet parce que tey bu ñëpp jàppee projet bi teel na. voilà. loolu di sant ñi ko organisé yëpp euh, ci lancement film bi ñu bëgg a ci parce que fondateur Birame ñëpp xam nañ la mu daj man de ma doon liggéey ak fi mu doon jàkkaarloo mu nekk ba chef de service mais dama dem ba mujj gi dama rus dama rus dem di seet di seeti Birame Souleye parce que benn pukus bu ndaw lañ ko jox ndax di ko xeex Birame Souleye dañ ko xeex a xeex a xeex ba njabootam bokk ci xeex bi ndax dégg ngeen histoire bi jabar ji am ndax histoire mu jàpp rek kon boobu dafa bokk ci jàmbaar yi Babacar Ndiaye GPS parce que naa ni ñëpp xam na ko bi taawam di judd sax ci kaso la ko fekk ndax projet rek kooku jàmbaar mbaq tëdd la mënu ma nag bañ a sama benn xarit muy Abbas Fall parce que Abbas na ba lépp mu yore yàq nañ ko ndax Abbas dafa yore ay école ay école laa wax di dimbali doomu aadama yi xam fii lan mooy épiliñe xanaa joolaa yi xam nañ ni épiliñe mooy fas li waral épiliñe épiliñe rek mënuñu koo cee bañ a bi ñu sos parti bi bu ñu ma dee juróom-ñeent bu ñu naan ñoom Birame Souleye ñoom Diomaye ñu wàcc 6 heures ñu soog a mën a réunion ba 6 heures et demi 7 heures gars yi ne ci embouteillage yàlla dogal nag ma amoon benn xant audi quoi bu ma jël ko ñu a dëkk yëpp maa leen di yàpp benn mais la yore dugg ci épiligne bi bi daa koy bëccëgu dara ka am lakk ba jeex tàkk te foog naa ni parti bi moo ko waraloon mais du may mun rek mooy fii jigéen de ndax ko may mun wax Mbène wax Fatima wax Sina kon loolu mooy ñi nga xam ni ku ci déggu sa tur nag ma jéggal mais dañu ko ñoo xam ne mënuñu leen woon bañ a seppi tudd leen ndax ñëpp xam nañ seen jàmbaar te dañoo yàgg yow sponsor ki leen jiite nag bëgg na Guy Marius moom moom moom moom moom dafa spécial Guy Marius moom xam nga yéen Guy Marius ngeen wax man Guy Marius laa wax naa du daanu bu du sonn du màgget du baxe du tappale boo ko fekk muy def nga ci taxaw rek kon ñun Guy Marius saa la kon moom du kii sans compagnie ñoo xam ni am na fi ñoo xam ni ay membres fondateurs lañ te tudduma leen buñ buggee lim ñëpp duñ fi jóg ndax dafa am ñeent ñu war a wax te ñëpp am nañu ñi mujjee ñëw am nañu leen di te tudduma leen mais dañu xam ni kenn ku ñu tudd rek ku ñu tudd sa morom yow lañ tudd ndax Ibrahima Thiam mi ngi nii toog tudd naa jeunesse yi Cheikh Bala Thiam mi ngi nii toog tudd naa jeunesse yi ñoom Ndeye Ndiaye mi ngi nii toog tudd naa jeunesse bi kon bu ma tuddee ñenn ñi rek ñu xam ni ñëpp laa tudd bu ngeen bëggee topp su ma limalee rek duñ fi jóg dañu leen avancé te dama bëgg ñëw nag dama bëgg a ñëw ci ki xam ni mooy jabati ñoo ñëpp muy Ousmane Sonko. que dama ne leen ku ko jege woon la ba léegi sax xaw naa ko jege parce léegi dama xaw a sori ne ma comme léegi état la mën a tooy yore protocole bi waaye dénk naa la cabinet te foog naa ni. foofu famille yi ngay gérer rek politique beeg euh, wéré messe yi Ousmane ku jullite ku gëm ku maandu ku bëgg njabootam ku am diine ku doylu ku bëgg nitam ku mën nitam ku xam nitam ba dëkk ci Ousmane Sonko ñenn ñi sax dañ xam nañ ni mu mel mais ma leen di wax ne billaay Ousmane kese kese Ousmane ku bëgg a nekk ak moom comme ni ma nekk ak moom dafa am yoo xam ne Ousmane ci kaw boo ko defal rek ngeen jubóo Ousmane bëggul ku koy nettali. Ousmane bëggul nga ñëw toog di jëw nit Ousmane bëggul te mu seqal nga ciy jéem a dugg parce que ñu ko woon ñëpp ku ne mi ngi seq yow loo xam ne seq ko keneen di sant loo xam ne seq ko keneen te ñëpp da leen ko doon dugg mi ngi bëgg a gudd mais il faut ma tëj mais damay tëj mais bala may tëj nag. man dama am sama njabootu bopp nag man Djibi Gueye Ndiaye xam ngeen ñan la man sécurité ak chauffeur ñooy sama njaboot ñooñu ñoom dama leen di sargal spécial ndax fu ñu dem bu ñu lekkul lu ma lekk bu ñu amul fu ñu tëdd man du ma tëdd boobu ba léegi nag bàyyiwuñu dawuñu doxuñu loolu daj nañ amul ci ñoom bu ci demul ci kaso mais tey lañ gën a kon yéen dama leen di lancer appel lépp lu ngeen mën ci ñoom def leen ko te yàlla tax ndax ngeen jëriñ ko loolu maa ngi ko kon pour tëj wax ci ñaari point laa koy tëjee benn bi mooy sacrifice démb ñëpp dégg nañ euh, Ahmed ministre secrétaire général du gouvernement di wax ni daanaka ñi fi jógee liñ fi bàyyi duñ ko calculé woon tey ñun ku ci nekk war nga fay neuf cent dañu leen déglu leen déglu déglu leen rek déglu leen déglu li may dafa am solo li muy wax déglu leen xam nga ñun ñii maanaam ma ne ñun ñii amel nañu état bi ku nekk neuf cent mille loolu mooy wax mais yàlla dafa def ñun mënuñu ko fay parce que tey ñi ñi jiite mooy ñi ñu yor kon tey ñun li ñu war mooy sacrifice mooy xeex mooy liggéey takk ndigg yi di xëy heure di wàcc heure di bàyyi yëfi jàmbur di jàppalante di bañ a buuxante di bañ a siisante ku ci mën dimbali sama dimbali ko loolu lañu mën a liggéey ba tey bor boobu wàññeeku ba ñu sacrifice boobu nag fi ma koy tëralee mooy fi ñu jëm mooy élection législative tey Sénégal yëpp ku bokk Pastef ba nga nekk député dëgg loolu dëgg ku nekk Pastef rek tey jàpp nga ni war ngaa doon député am na ci département yoo xam ne du ma tudd sax tur mais am na ci département yoo xam ne ay quatre-vingts candidats quatre-vingts yenn département yi cent li nekk ci député war naa neex de ah Abbas ah, ah doy na ci député war neex parce que ku jóg rek ne député man de lu mu tëral ñu xam ne tey kenn du am ñaari ndomb am yàlla def ñoo xam ne nekk nañ ay ministre ñenn ñi yàlla def tey ñu ay ay ay Coro Mbacke ak sëñ Saliou Mbacke Balla Dior ak sëñ Amdi Mbacke ak imam Trané ak Sëriñ euh, Omar Bamba Diop ak mbooleem kilifa yi fi nekk yëpp ak jawriñ Njaase Sidaat ak mbooleem daal njaboot gi fi nekk yëpp ñoom Ibrahima Gueye nay leer euh, xam naa liñ ciy wax du bari euh, li may wax rek mooy demande sociale noonu lañ koy waxee wala demande nationale père Djibi Gueye ngay wax loolu demande nationale la voilà parce que li nga wax fii yow waroo di noppi voilà parce que vraiment euh, wax xam da cee baax te li ngay wax xam nga ko kon il faut nag léeg-léeg nga waxtaan ak ñu dara ci suñu waa ji président Ousmane Sonko waaw. Euh, li may njëkk wax nag dina xaw a génn jotaay bi tuuti waaye du ko sori mooy ku nekk gis nga démb li am muy lu raar ci nguurub africain ñu jël nguur mën a toog jàkkaarloo ak askan wi ne leen lii lañ fi fekk te muy dëgg di lu leer te ku dégg monsieur Al Amin Lo démb li mu wax mooy lii aw fit moo koy wax ak jom waaye wax ko neexut parce que soo ko waxee ñi la war a lebal ëllëg ak ñi nga war a jëflanteel ëllëg mën nañ laa ragal waaye nag faw askan wi xam ma ne loolu de la ñu président Ousmane Sonko waxoon mooy buy neex dañuy wax dëgg buy naqari dañuy wax dëgg ku nekk nag gis na ne muy raar suur yoo xam ne président Ousmane Sonko nekk na ak askan wi lu mat ñaari waxtu te kenn gisul bëñam démb nag moom Ousmane gisuma fenn fu mu reetaane waaw xaw ma daa bëgg xaalis xaw ma càcc gee métti mais démb moom beneen Ousmane Sonko lañ gis waaye nag vraiment démb li ñu ñu won li ñu ñu won te wax ñu ko muy ay chiffres loolu kenn mënu ko gis sa xol di neex loolu mooy dëgg parce que plus de ay six cent quelques milliards mille huit cent quelques milliards yoo xam ne dañoo disparaître boole ko bu doon loolu rek nga mën a wax ne c'est normal xëy na sax mën naa yem daal mais boole ko état boo xam ne jamais mu wax dëgg aw askanam jamais mu wax dëgg ay bailleurs loolu mooy kuy ñëw lu yëre te joxe woo sa sa sa sa chiffre normal bu la tailleur bi ñawalee ba noppi doo ko mën a sol kon ñun Sénégal gi Macky Sall doon jiite ak Sénégal gi nekk sax bokkul parce que chiffre yi ñu doon euh, gouverner normalu ku nekk xam na ne nag fii suba di ngeen gis yenn mercenaire u micro yi ay classe Birame Seck classe Madiambal Diagne ay Barama Gajaga mooy mooy góor yaay may ma ñeex yooyu tapet yooyu. cœur brisé cœur brisé. ay chiffres garaawul Amérique sax ay chiffres am du loolu la wax am naan Amadou Ba ku ne xam na ne li mu xamee chiffres ni mu liggéeyal Sénégal yooyu lañ ñuy bëgg a wax ak naan waa affaire bi kat bu normalul woon kon Cheikh Diba Ousmane Sonko du ko jël. te ku ne xam na ne Cheikh Diba lan la jiite woon directeur programmé de budget mooy koo xam ne budget bi lay jël programmé ko ba ministre bi jot ci yóbbu ko conseil de ministre foofu la am liggéey ak yow pour sénégalais bi may déglu xamul loolu mooy lan mi ngi mel na nga am sa xew dem woote comme base ñoom mën nañ la programmer xew bi baasal la ko ba mu naay si waaye bi ngénte bu xewee te ngénte naqari borom doom bi lañ koy laaj lu tax ngénte li neex ak lu naqari waaye yow ñu ne la sa ngénte li neexut nga naan woo leen ci baas baas bi loolu mooy tapale. seen numéro ministre de la ministre finance Amadou Ba Mamadou Moustapha Ba ak ak ak ak euh, Abdoulaye Daouda Diallo ñoo ñooy borom xew mi nañ gën a wax ci seen xew te bu ñu yebal ci benn balance. ay sàcc lañ ay sàcc lañ ay sàcc lañ ay sàcc lañ ay sàcc lañ yu mag yu mag a mag sax waaw léegi nag beneen La jeunesse sénégalaise avance, le cœur gonflé d'espoir, le regard ancré vers l'horizon. Elles caressent leur visage, glissent sur leur peau, mais ne freinent en leur élan. Ils marchent ensemble, déterminés, porteurs d'un rêve devenu réalité. Leur rire éclate parfois, mêlé aux gouttes qui frappent doucement le sol, comme si la terre elle-même vibrait à l'unisson de leurs aspirations. Ces jeunes ne sont pas que des passants dans l'histoire, ils en sont désormais les auteurs. Sous ces pluies fines, c'est toute une génération qui s'éveille, qui se redresse. Ils ont grandi avec Pastef, épousé ses idéaux, et aujourd'hui, fonctionnaires et pour la plupart des inspecteurs des impôts relèvent que les préoccupations en matière de rupture, de lutte contre la corruption et d'amélioration de la gestion publique ne sont pas prises en compte. C'est sur ces entrefaites qu'un notoire syndicaliste de la corporation fiscale s'illustre en lanceur d'alerte et sentinelle de la bonne gouvernance. La leçon du parti a coïncidé avec euh, le constat que nous avons fait où des de fonctionnaires, de cadres sénégalais, intéressés par euh, la vie de la nation, avaient tenu à faire une évaluation de la vie du Sénégalais. Et au terme des constats, il était apparu que, au regard de notre niveau d'implication dans le secteur privé ou dans nos administrations respectives, nous avions suffisamment d'informations, nous avions suffisamment Euh, d'appréhension juste sur la vie du Sénégalais pour ne plus être des observateurs. Et c'est partant de cela que certains avaient initié le projet en se posant des questions. L'une des premières questions qui, qui, se posait était de dire euh, est-ce que nous devons engager en politique C'est M. Ousmane Sonko qui m'a appelé euh, un après-midi pour me dire qu'il y a une réunion qui devait se tenir au niveau de la zone de captage Il y avait ce jour-là, lors de notre réunion dans une petite salle, euh, le nombre de personnes qui étaient là ne dépassait pas 15 personnes. Il y avait, si je ne euh, deux diplomates qui n'avaient pas le droit de faire leur politique, qui étaient là-bas, euh, il y avait aussi d'autres commis de l'État qu'ils n'avaient pas droit aussi de faire la politique, mais c'est des amis. Donc ils sont venus écouter et donner leur point de vue. Ça, c'était en octobre 2013. Mon engagement en tant que membre euh, militant d'un parti date de 2014, donc elle, il coïncide avec la naissance de, de PASTEF. Euh, j'ai été informé de la création du parti avant son lancement, donc ce qui m'a permis de de m'informer, de interagir dans une de mesure avec euh, certains de ses leaders, notamment le président Ousmane, que je connaissais avant PASTEF. Euh, je dirais que beaucoup de choses me lient au, projet. Je pense que euh, je fais partie de ceux qui, le 4 janvier 2014, étaient à la salle au niveau de l'UCAD pour la création du, parti PASTEF. Mais ça, ce n'était que le couronnement d'un projet de formation d'un parti politique. Mais de façon plus euh, personnelle, euh, j'ai une relation privilégiée avec le président Ousmane Sanko, euh, le président Diomaye Faye et d'autres personnes comme Biram Soleil Diop. Nous avions d'abord partagé la même profession, d'inspecteurs des impôts à la DGID. Mais nous avons aussi partagé euh, le syndicat des impôts. Parce que PASTEF, euh, on peut ainsi dire, c'est un peu le même personnel. C'est le prolongement de tout ce que nous voulions au niveau du, du syndicat des impôts, qui a été la première expérience euh, nationale du président Ousmane Sonko, quand je l'ai remplacé à la tête du syndicat des impôts. je pense qu'il avait besoin d'un autre espace. Parce qu'on a compris qu'avec le syndicalisme, on peut certainement influencer euh, la vie des fonctionnaires au niveau des impôts, mais on peut pas changer le Sénégal à partir d'un syndicat. réunion boobu bi ma fa demee am li nga xam ne moo attiré sama attention parce que gis naa ne ñi fa nekk pour la plupart c'était des jeunes ay xale lañu et c'était des euh, de l'administration surtout impôts et domaines te ku xam impôts Euh, am na lu muy demee loo xam ne ku ci bëgg am lu yomb mën nga ko ci am tey doo sonn mais ils ont choisi euh, le chemin le plus difficile parce que ils sont au cœur de l'état gis na ici euh, y a des choses yoo xam ne doxul ñoom ñu am mébétu sotti ko jaar par parti politique le chemin le plus épineux bu difficile loolu vraiment attiré na sama attention. départ bi ñun ñëpp ay gàllankoor à peut-être xamante ñi nga xam ni ay mbokk lañ.

Personne n'a levé la main. Ousmane Sonko n'avait pas levé sa main. Tout le monde a dit Ousmane Sonko. C'est l'Assemblée qui a décidé que c'est lui qui devait être le président. Ils l'ont désigné, il a beaucoup hésité. Parce que nous avons tous participé à ce travail-là. Nous avons tous le même engagement dans ce projet. Choisissons quelqu'un d'autre. Et on l'a dit, nous tous, c'est vous qu'on choisit.

parce que il était au niveau du syndicat des impôts et domaines. Il ne peut pas le faire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame entre les deux entités. Euh, raison pour laquelle, au niveau de la photo originale, tu ne verras jamais Bassirou Diomaye dedans. Moi aussi, je ne faisais pas dedans. Pourquoi Parce j'avais refusé de prendre des au niveau du bureau. Mais j'ai accepté de travailler à côté dans le cadre de la massification du parti. Parce que nous étions dans le syndicat. Il ne fallait pas qu'il y ait cette confusion entretenue entre une structure politique naissante et un syndicat, même si c'était un le même personnel, les mêmes animateurs, pour l'essentiel. Quand je retrace euh, l'histoire de PASTEF, je fais la différence entre les initiateurs, c'est-à-dire le premier groupe qui s'est réuni, et euh, qui a eu l'idée de créer le, le parti, euh, ce qu'on peut appeler aussi les, les Il y a Un deuxième groupe que j'appelle les membres fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à la création même du parti le 4 janvier 2014 à l'UCAD. Et les groupes qui se sont ensuite greffés au, projet jusqu'à donner ce qu'on connaît aujourd'hui. c'est l'actuel maire des Parcelles Assainies. Il me dit, écoute, euh, y a un parti politique en gestation qu'on en train de créer. Et il m'a parlé à l'époque de Ousmane Sonko. On se connaissait pas. Je savais à l'époque que c'était le secrétaire général du syndicat des impôts et domaines. Et donc, j'avais en tout cas un peu entendu parler de, l'homme. Et donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit non, ça pouvait être un projet intéressant. À la réunion qui a suivi, je rencontrais Ousmane Sonko avec euh, beaucoup d'autres initiateurs. C'est j'ai été là à la création de, de PASTEF. PASTEF qui venait de naître chercher un responsable com qui m'a porté directement au politique. Donc c'est là qu'on a démarré. Très souvent, on entre 10 et 15 personnes. Et je pense que c'est là où les, vrais liens ont, démarré entre euh, le président Sonko, moi-même, le cercle restreint d'alors. y avait eh, des Birame Souleye eh, Diop Matar Sène Djibril Sonko entre autres Djibi Gueye Ndiaye Pape Mata Ndour et donc euh, et alors c'est le début du commencement parce que un petit groupe avec une seule dame Maïmouna Dieye qui était là euh, on avait commencé à dire nous allons bâtir ce qui va changer le pays. Je ne suis pas membre fondateur. mais sont arrivés quelques mois après la création du parti, en octobre 2014. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant cette période, euh, je crois à la première réunion que j'ai assistée, c'était la deuxième du parti, euh, il y avait peut-être euh, six ou sept personnes autour de la table, donc il n'y avait pas grand monde. quand je suis arrivée, voilà, euh, la sœur qui était là, qui a été obligée de, euh, voyager euh, aux États-Unis, à Châteauray. J'étais la seule femme responsable, militante qui était sur le terrain, vraiment pour travailler pour le parti. Là, je me souviens, le journal de l'Assemblée générale constitutive, la date et retenue, ma personne, on avait Et ce jour-là, En fait, je voulais me retirer, mais j'avais une réunion qui ne me permettait pas en fait de me libérer et de me rendre à l'université chez Diop de Dakar où se tenait l'Assemblée générale. Mais j'avais dit à Matar, que vous puissiez décider, moi je y adhérer. Euh, pour la petite histoire, euh, bi ñuy choisir li nga xam ne moom mooy euh, l'animal muy animal bi nga xam ne dafay symboliser détermination muy Pastef en wolof. je pense que ce jour là bokkul si réunion yi gën a neex si réunion Pastef yi animal bu nekk nag génn na fa mais finalement comme euh, le débat tirait en longueur les échanges moi-même j'avais proposé au groupe d'appeler un ami un collègue boo xam ne c'est un traditionnaliste homme de culture docteur Massamba Gueye et bi ko woowee aussi euh, expliqué ko ne ko dañuy seet animal boo xam ne moom mooy symboliser li nga xam ne moom mooy détermination vous proposez du Panther euh, La Panthère, oui, parce qu'en termes de persévérance sur terre, sur mer et dans les airs, il atteint son objectif. Et les couleurs, le rouge, parce qu'il fallait faire du don de soi. Mais don de soi pour la patrie. Pas don de soi pour soi ou pour X. Donc si on fait du don de soi, naturellement, on va aller vers la prospérité, vers Mais tout ceci se fera dans la stabilité et la paix, le fond blanc. Voilà ce qui explique un peu, un l'histoire. Ça, c'est les cartes, par exemple, de monde. Ça, c'est les premières cartes de monde de passage, je crois. Ça, c'est Matarsin les avait Pastef a été notre première sortie après la création de, du parti. On devait être dans les premiers mois du, euh, de l'année 2014. J'ai vu le président Ousmane Sonko faire une sortie et quelque chose à moi m'a appelé, quelque chose m'a dit, voilà, je pense que là, il a un train qui prend son départ. Si toujours qui était de vouloir participer au changement du pays, euh, l'occasion t'est offerte pour pouvoir monter dans ce train-là, si réellement c'est une croyance. Bien sûr, je suis diplomate. À l'époque, Et j'ai cherché dans Facebook, j'ai vu la page du président Ousmane Sonko. Et je lui ai un message. on devrait être entre février ou mars 2014. J'ai eu une réponse du président Ousmane que vers août, quasiment six mois après, il m'écrivait, j'avais déjà quitté Madrid et j'étais en, Gambie. Il me disait oui, euh, désolé, j'ai loupé votre message parce que justement nous sommes en train de nous structurer et qu'il fallait que je fasse beaucoup de choses. Donc cette page-là qui était la page Facebook venait juste d'être créée. et qu'il lui arrivait des d'oublier même de consulter les messages. Mais quand même, il avait pris le soin de me répondre à partir de ces messages-là. Et je lui disais, d'ici deux mois, normalement, je devrais être au Sénégal. Et quand je serai à Dakar, je, ce un plaisir de la rencontrer. C'est là où tout est parti. C'était en 2015. À l'époque, euh, je voulais même intégrer des cadres. pour euh, participer aussi à la production intellectuelle et aussi euh, au débat spécial. Il m'a dit le président que tu sais, jeune frère Ibrahim, bon, on n'a pas encore un moment de cadre. Et comme tu es jeune, même si tu es un cadre, bon, est-ce que tu ne vas pas essayer de nous faire un peu l'évaluation déjà euh, de notre organisation On a juste des UGB, cellule ICAT, de Gigachor, qui, qui, ont été installés par la, à, euh, la commission de massification à l'époque, Ousmane Baro et Yankovo Sonko. Après, le président m'a dit donc, il faut essayer de comment organiser un peu les l'évaluation, après, on va faire une note. on ne pouvait pas parler de structure, mais de points focaux. Parce que pour parler de structure, il faut quand même une masse critique dans une localité définie. Mais c'était une personne, deux personnes, trois pour me signifier au parti. Je les mettais ensemble et je choisissais la personne qui présentait le plus de qualité ou bien d'aptitude pour diriger le bureau qui était en, gestation. Et comme ça, on a pu implanter euh, des bureaux à Amour, à Saint-Louis, à Kaolack, à Ziguinchor et un peu partout au Sénégal. La politique, c'est pas la quête, de poste, mais c'est une positive, qui a une valeur morale, qui permet à chacun de s'engager et de faire quelque chose. Notre véritable objectif, c'est inscrire à l'être d'or nos noms, en tout cas sur l'histoire du Sénégal, en étant le régime qui a transformé de manière systémique, rapide, qualitative euh, le Sénégal. L'islam, ce n'est rien d'autre que des centres d'intérêt, des enjeux que gèrent des personnes en fonction de leurs intérêts propres. C'est un système. Tout acteur qui met sa main, qui tire son intérêt de ces enjeux est un acteur du système. Donc, ça n'a rien à voir avec un nom, une personne. C'est toute personne qui contribue de manière négative dans un cadre déterminé. Il y avait des intérêts privés qui avaient kidnappé l'État. Et ça, il y avait plusieurs acteurs avait des fonctionnaires, avait tout ce que vous pouvez trouver à l'intérieur euh, de cette organisation. Ils ont choisi euh, le chemin le plus difficile parce qu'ils sont au cœur de l'État. gis na ici il euh, y a des choses yoo xam ne doxul ñoom ñu am mébétu soppi ko jaar par parti politique le chemin le plus épineux bu difficile loolu vraiment attiré na sama attention quand j'ai écouté j'ai été impressionné par le niveau du débat très dense très élevé parce que man bi ma fay yegg maa ngi fekk ñoom ñu ngi doon finaliser euh, règlement intérieur bi euh, statut yi mais également un document très important de PASTEF que j'aime beaucoup muy euh, l'appel aux patriotes parce que jusque-là moi je me dis que c'est le meilleur le meilleur texte que PASTEF ait produit jusque-là moi je me reconnaissais à travers le contenu de cette lettre intitulée l'appel aux patriotes c'est une page mais ça dit tout ça dit tout parce que ça a fait un diagnostic sur le Sénégal avant l'indépendance et comment on a marché en reculant jusqu'à se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Ensuite, quels devaient être les, jalons à poser pour une vraie rupture, pour changer de paradigme Je suis sur le manifeste du patriote. Je crois que tous les patriotes devraient lire ce document. c'est le fondement de PASTEF en fait. Et quand j'ai lu le manifeste patriote, avec euh, les j'ai compris. J'ai posé beaucoup de questions au départ. On me disait que, en fait, c'était un petit groupe de fonctionnaires qui étaient frustrés par le fonctionnement de l'État du Sénégal. Je me rappelle quand je disais le, manifeste du patriote, la question qui se sont posées, pourquoi le Sénégal Un pays qui, en avait le même niveau de développement que la Corée. Et dans ce document, ils ont écrit que aujourd'hui, c'était en 2014, le Sénégal est 155e pays et occupe la 155e place de l'indice de développement humain. Quand on vit dans un pays qui a autant de potentialités que le Sénégal, matière euh, en économie et autant de potentialités en ressources humaines et qu'on voit ce pays-là patauger dans des difficultés au point d'être euh, le 25e pays le plus pauvre du monde, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer justement euh, de faire en sorte que ce pays la sorte de ses difficultés. Voilà pourquoi, à un moment donné, je me suis posé énormément de questions, comme du reste ceux qui ont euh, initié la création de PASTEF, je me suis posé énormément de questions. Pourquoi le Sénégal, qui en 1960 était l'un des pays les plus avancés d'Afrique, est aujourd'hui euh, 25e pays le plus pauvre du monde Et la réponse que à cette question-là, c'est que nous euh, des dirigeants politiques à la hauteur des ambitions du peuple sénégalais. Voilà pourquoi j'avais de m'engager politiquement et le cadre le mieux adapté que j'ai politique, c'était PASTEF, et voilà pourquoi je me suis engagé à PASTEF, et depuis lors j'y suis. Grâce à l'influence croissante d'Internet et des réseaux sociaux, PASTEF se diffuse petit à petit dans le quotidien des Sénégalais, touchant des milliers de citoyens, souvent ignorés par les formations politiques traditionnelles. Il était censuré au niveau de la presse pour parce qu'il venait à mon Excusez-moi, mais mon frère, moi je ne comprends pas. Donc, je vous disais que, bon, écoute, je qui n'est pas aussi facile. Surtout qu'on avait en face un régime qui avait pratiquement le contrôle de toute la presse. C'était difficile. Nous sommes d'accord à chaque fois pour nous donner l'opportunité de venir sur plateau, de s'exprimer librement. Parce qu'au total, il a fait émissions